askan wi salaamaaleykum mbokk internetu Hann TV ñi ngi am mbégte ak contentement bu rëy tey di leen dalal ci seen émission bu ñu tuddee pencum Hann pencum Hann nag di jotaay bu yaa bu ñuy siq ak ndaw yi askan wi tey nag ñu am ay gan yu mag jógee Hann village wala Yarax ñu ciy dalal tey Ahmad Adja, président président conseil de quartier de Anne Village di ci dalal Jimé Sidibé président président association des jeunes pour la promotion de Anne. di dalal aussi suñu tante Nene Sar, nek aussi bàjjenu gox ñu ngi dalal aussi tamit euh, suñu sœur Jëliya Diaw nek euh, membre panel B de mais aussi tamit di yëngatu santé balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi rek ñu bàyyi leen ku ci nekk mu nuyoog askan wi président. asalaamaaleykum mbokk maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu initiative yi ngeen xamante ni boole ngeen ñu ci pour ñu wax ci li jëm ci suñu wàllu gox di suñu quartier ñu nekk ci ay ay ndongo yoo xamante ni population bi moom ñu jox mission ñu fas yéene ko defal di leen gërëm di leen sant ci. c'est une très belle initiative qu'il faut encourager ak euh, du profiter si occasion aussi nous, nuyu ñi nga la ni laa la plateau bi euh, di si jiital sama tata euh, Nene Sarr ak sama grande sœur Delia Diaw ak mon frère Jimé Siribé. di ñaan yàlla un bon déroulement de l'émission merci beaucoup. président Jimé. Salam alaikum. di nuyu bu nekk si santam. Euh, tamit euh, di nuyu internet yi nga xamante ni ñu ngi suivre en euh, TV di wax que ni <coughs> kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax si invitation bi nga xamante ni am nañ ko rien que pour ñu ñëw toog fi ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo soxal suñu quartier li nga xamante ni moom moo nekk en di ñaan yàlla commencer débat bi ci bisimilah rahmaani rahim ñu terminé ko ci alhamdulilah rabi alamin te tamit di nuyu ñi nga xamanteni ñom la bokal plateau bi ñëpp. jërëjëf président tata Nene maa ngi laa ziar. salaamaaleykum mbooloo mi may nuyu ñep di sant ñep di gërëm sama ñaari waaj di julli ci yaram tu ah émission ya, bi yàlla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim te galat ak alhamdulillahi rabbil alamin ma ñew fi nak en tant que bàjjanu ko la fi tooge ndax sama présidente moma wo di Mbacke Diop nema amna émission bu daw am TV pour nga dem tok fa waxal ma ko may nuyu nak sama dom yi ma bokal plateau di len sante di len gërem yal nañ ko dal ci sin yeggaleeg baax salam salaam a ah, Adja nuyu di nuyu sama ñi ma toogandoo fii sama tata sama frère yi di leen nuyu bu baax. di kontaan ci invité bi ngeen ma invité fii euh, pour ñu wax ci nga xam ne mooy suñu problème waa dëkk mu nekk loo xam ne lu ñu ñor la kon tey bu ñu teewee fii lañ ci am mbégte rek lañ ciy am maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. jërëjëf mbokk yi euh, xanaa rek euh, ñu samp laaj yi rek dooree ko ci président Ahmada président Ahmada en tant que. Euh, président conseil de quartier de Village euh, ban jangat ngay am ci action yi nga conseil bi depuis merci beaucoup président euh, aussi pour dire plus il est toujours important nous rappeler la définition définition conseil de quartier d'abord parce que le conseil de quartier est une ben structure bo, fédérative apolitique reconnue par la municipalité cadre de concertation la de euh, mettre en exergue la cohésion entre les actions et les auteurs de l'action pour déceler les problèmes du développement local donc ce dafa il faut que xam ko lu ci am solo cohésion la cohésion bi que ñun dañu nek interface entre population et la municipalité di saytu li nga xamanteni moy les mots qui gangrènent notre quartier Du ko def dans la cohésion dans l'écoute citoyenne dans une décision partagée pour avoir une solution durable. action yi ci def nak c'est multiple bari par secteur suñu xolé dans le domaine de l'environnement conseil de quartier mu ngi taxaw taxaw bo xamanteni pour par rapport au réchauffement climatique bi nga xamanteni mo nek ci àdduna bi lépp loo xamante ni mën nañ ko def pour suñu quartier gën a ñoŋ pour nga xamante ni espace bi ñu amul woon ñu am ko ak li nga xamante ni ay pollution sonore yi doon sonal loolu conseil de quartier bi xaaru su kenn da koy def dans la cohésion pour apporter des résultats ci loolu naa ci joxe ñaari exemple yu patam yéen ñëpp déggoon ngeen en village amoon na benn groupe boo xamante ni groupe électrogène su doon tàq ba fajar kenn du kenn du dégg ñu nekkoon ci usine boobu

action yi nga xamanteni ni ñun marqué nañu ñu japp ni priorité les populations en village mooy li nga xamanteni ni dafa lié ak suñu réseau assainissement c'est important de le préciser assainissement du domaine bu mairie du suñu domaine domaine état la mais conseil de quartier bi def na si jéego yoo xamante ni tey jii nii am nañ une collaboration ak ñoom soo leen xoolee soo leen demee ci pavage bi lépp lu fay rigole yi nga fa gis ñu am couvert en partenariat avec ONAS on est en train de l'offrir ñu def ko et ba ñuy en avant projet dès le début des du de ah, début pavage bi que si l'Atlantique bi jaaree gis affaire yi bloqué le conseil de quartier bi a décaissé beaucoup d'argent Autour de 600 000 francs avec l'appui du maire Nous def un curage de 72 heures pour soulager les populations bañ ci jugee yooyu jàpp nañ ni am résultats C'est des actions qui ont coordonnées avec la population parce que nous sommes tous solo rôle conseil de quartier finalité acte 3 Là. parce que fait engendrer l'union émergence de pouvoir consultatif parce que suis suñu rôle première mais si biir consultation boobu noonu ñun daa am nu ciy parce que du ñu dox mukk te ñu si war a boole boole wuñu leen ki ci les délégués de quartier parce que conseil de quartier en village situation c'est inédit ben quartier bu am trois quartiers à l'intérieur Nous si nekk am conseil de quartier Nous ñu fédérer les actions pour renforcer nos puissances toutes les actions que nous faisons sur la terrain Nous alerter les trois délégués Nous alerter les les imams qui les composent les personnes ressources Les clergés, qui yi nga xamante ni ñu nous fa ñoom dañuy actions seen ci action yi conseil de quartier bi dégager un capital symbolique entre le conseil de quartier et les populations tey jii ku boppam di pour le gis de la métti da conseil de quartier bi pour réagir mais c'est un motif de satisfaction c'est un élément de mesure pour wane gars quelle position occupe le conseil de quartier dans l'esprit des Hanois des jàpp c'est une excellente position d'autant plus que nous tentons tant bien que mal d'apporter des solutions aux problèmes de Han Village. merci président je crois que la réponse est claire mais président Dimet. Euh, au vu du développement et des actions yi nga conseils conseil de quartier mu est-ce que euh, à la longue ça ne risque pas de faire ombrage aux associations telles que parce que dañuy avons ni AJPH action yi def dans le temps conseil de quartier mi La koy def. question bobu apporter quelques éclaircissements parce que à l'heure actuelle remarque avec euh, l'avènement des conseils de quartier. dafa mel ni association yi nga xamante ni ñoo nekk autour des quartiers dañu commence tendre euh, à disparaître parce que boo xoolee comme euh, président Ahmada lu mu ko waxee ah mooy que nii le conseil de quartier dafa am benn concept am seen objectif mais à la dañuy dem ba def li nga xamante ni dañuy dépasser ñoom seen euh, prérogative parce que dañuy piétiner li nga xamante ni moom la association waroon def. so xolé rôle conseil de quartier ñom en général duñu yem ci li nga xamanteni mom lañu wara def dañuy ñëw ba nga xamanteni parce que boo xoolee euh, nos associations comme AGPAS mu nek une association phare créée depuis 97 97 à nos jours suñu papa yi ñoo taxawaloon AGPAS ñun ñu nekkoon ay xalé yu ndaw am na ñoo xamante ni ils sont dans le groupe, boobu ba ñu AGPAS AGPH xalaatuñu juddu mag ba ñëw nekk ci association mais actuellement ni ak euh, conseil de quartier bi muy doxee day dem dem dem dem da fay dévorer lepp li nga xamante dañuy nek association parce que man mii di wax ak yow membre laa ci <clears throat> conseil de quartier bi action yi ñuy defandoo yëpp ñoo koy defandoo ensemble loolu noonu nag day dem dem dem dem à telle sorte que bu fekkante ni canaliser wuñu conseil de quartier bi les associations risquent de périr. mais président mm-hmm. est-ce que loolu du yàqu association. Euh, association yi si si si parce que comme ni mu ko waxee ah, association yi am nañ seen comme par exemple AGPH ba ñuy ñëw ñun dañu rampé nek membre simple dem dem dem ba tay jii nekk président association bi chaque année dañuy teg ben plan de travail annuel suñu plan de travail annuel yi nga xamante ñun créé wuñu ko dafa xam ne dafa nek lo xam dañ ko fekk mais amna li nga xamante ni doole nañ ko si mais à l'heure actuelle ni ñuy wax ak yow nii avec ce qui se passe moy que ni Covid bi ainsi de suite affaire action Covid donc mm-hmm. Covid ah bon ah, Covid la. Ah. depuis 20 ans. depuis 20 ans oui maintenant si si on voit avant l'avènement des conseils de quartier. moy mm-hmm. que ni bu en matière de réalisation en village bu fa wax fi fait ne ay réalisation rek en tant que structure phare bi nga xamanteni mu nekk rek structure numéro 1 au niveau de cette commune bi bi bi bi conseil de quartier bi ñëwé dafa melné euh kii bi dafa wàcc euh, loolu laa doon wax léegi léegi c'est-à-dire euh, euh, comment dire réalisation yooyu non wa AJPS dañ ko def parce que moment bobu noonu lool mom mo nekkoon sujet d'actualité mais actuellement ni ak avènement conseil de quartier bi dafa am benn maillage bi nga xamante ne dafa am dafa am benn maillage bi nga xamante ne dafa am AGPS teg na ay programme am conseil de bi tamit am nañ seen ay programme mais ñun boo xoolee programme bi nga xamante ni moom la association bi am normalement sur le volet éducatif santé ak environnement la léegi nag le conseil de quartier moom prérogative am lan la woon d' après ce mooy conseil de quartier su fekkee ne am na étage entre euh, dans le quartier ñoom ñëw indi seen ji mais des fois da ngay gis euh, conseil de quartier dañuy def ay affaires yi nga xamante ni mouvement associatif yi ñoom ñoo ko waroon def xam la ne mouvement associatif bi ñoom ñoo ko waroon def mais conseil quartier dafay ñëw moom mu ñëw mu def loolu noonu te tamit bu fekkente ni ñun li nga xamante ni moom lañu jël euh, moom la am euh, moom lañu ñu fekk si association yi war ko dérouler normalement buñ si tegoo dafa nekk li nga xamante ni c'est parce que AGPS kon lu ñuy wax rek créé ñu fi daal lépp dañ ñëw fekk ñu togg ko ba mu ñor ñun dañu waroon ñëw rek déroulé normalement ko quoi dañu waroon ñëw ñu déroulé normal. merci président merci. Kane euh, ne yow en tant que bajenu gox ban jàngat ngay am ci ci ci relation bi nga xamante ni conseil de quartier bi war na ko am ak ak structure yu mel ni bajenu gox yi. dañoo bokk ci conseil de quartier li ñuy liggéey presque dañ koy ànd bokk liggéeyandoo ak ñoom waaye teewul suñu rôle lu wax dëgg yàlla première euh, ba ñu nekkee bàjjan ak léegi bu matul ñaar fukki at nekk na fukki at bu fekkee vaccination am na suñu docteur dañuy woo saw ñu def sensibilisation ci biir koñ bi ñu nekk ñeenti bàjjan ñu jël ko par koñ bàjjan bu ne dañ laa jox benn koñ bu dara xewee yaay dugg yaay waxtaan ak nit ñi foofu ca koñ boobu buñu ah, bu bu fekkee ay ñàkk la ñu ne suba la wala ginnaaw suba la dañuy daje kër sax waxtaan bu amé ño xamné dañ daan ñëw di ci té te ñu soo dañuy jox liste bi ñi yel suñu téléphone di woote ñu ak yow wax ak yow né la heure sangam ñu ngi buntu kër salen nga fekk ñu fa ñu vacciné wala ñu jox garabu sàll lool daan deug yalla ñu bàggan yi Nous ngi doxal loolu en tant que bàjjenu gox Djelia en tant que euh, juddoo Yara dëkk Yara nekk aussi tamit euh, kuy euh, yëngatu ci milieu milieu de santé donc est-ce que tu es impliqué dans la vie active du conseil de quartier. merci Le conseil de quartier bi. ma xool yaa y a deux ans de cela ci laa doog xam ne que Hann village am na conseil de quartier benn jour laa wax uli comme euh, bajan gox bu nekk ci koñ bi ma ne ko yéen fii Yarax est-ce que am na conseil de quartier mu ne ma exactement am na conseil de quartier man ne leen bañ koy def xanaa nit ñi yëguñu ko parce que man mënu ma juddoo Yarax màggee Yarax ba toll ni man toll ñuy def conseil de quartier te yëguma ko donc kër bu nekk waroon nañ fa mais loolu est-ce que du yow yow yow yow li wu ci activité bi la. Ah, mais xam nga nit ki balaa ngay impliqué wu ci activité day fekk nga yëg activité soo yëgul activité mënoo ci impliqué wu. parce que man miy dem bay laajte ndax conseil de quartier am na kon xëy na kon du ma ko yëgoon dinaa ca dem même fekkee du ma fa nekk maam dinaa dem toog mais yëguma ko ci la ma ci la ma bàjjenu gox bi ne sama koñ ne ma exactement am na ma ne ko mais loolu nan lañ ko defee.

yooyu yëpp ay problèmes yoo xam ne ñu ngi fa conseil de quartier bi gis naa ni am na am na ay jéego yoo xam ne ñu ngi ko fay def gox yi aussi euh, may wax ma ñëw ci bàjjenu gox yi ma leen di am lu ma leen di laaj euh, en tant que acteur de la santé euh, parce que ñoom mu ngi wax ni ci affaire bu vaccination amee parce que rôle bàjjenu gox vaccination da ciy joué mais en même temps les femmes enceintes yi nga xam ne dañu nekk ci quartier yi est-ce que bàjjenu gox yi ñu ngi leen di teg ci yoon di leen wax ni que visite yi nga wara def est-ce que ñu ngi koy def normalement di respecter seen visite yi di dem di def seen seen seen échographie yi nga xam ne dañ ko war a war a respecter pendant les neuf mois les deux échographies yi nga xam ne mënul mën a mënul ñàkk des fois sax day dem ba trois mais deux yi moom mënul ñàkk est-ce que tamit ñu ngi koy respecter en même temps tamit bu xale bi juddoo est-ce que ñu ngi respecter vaccination bi nga xam ne rendez-vous vaccination bi nga xamné xalé bi bu mu amé 0 à 11 mois da fa wara respecter vaccination bi est-ce que tamit ñu sensibiliser famille ci loolu bu ñu paré encore ci loolu est-ce que tamit ñu ngi sensibiliser famille ci ñu def espacement des naissances parce que ku jigéen bu wasinee war na euh, am un temps d'arrêt bo xamné dafa wara a pour mëna a amaat beneen doom parce que fay bax ci santé yaay bi baax ci santé xale bi nga xamné mom mom moom la yore da koy permettre mu nek en très bonne santé té jigéen moy yor moy moo yor société bu wéré donc da lay wëndi ko que dina mëna def yenn activité donc euh, la maman yaay bi ci boppam wax nañ ko mëna wax nan lay def ba mëna def espacement moy lan la planification familiale loolu ustam tamit est-ce que bàjjenu dox yi gox yi tamit ñu koy respecter di ko def Euh, normalement parce que tamit loolu mooy seen rôle li ñu war a def ci biir ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawam ci biir suñu commune bi. Euh, mu nekk lu important. même foofu ñu ñu laaj ñu laaj ñu laaj tànnee nag. waaw ma wax dëgg la ñu ngi koy doxal. ñu ngi sensibiliser kii ñu ngi waxtaan ak jigéenu wéru yi mhm. léegi xam kii tatanos bi jigéen ñi ñoo koy ñax ñàkku léegi mm-hmm. xam nga bu njëkk xale bi bu juddu woon lañ koy ñàkk mm-hmm. waaye léegi yaay bi ci boppam moo koy ñàkk mm-hmm. ñu ngi waxtaan ak ñoom bu fekkee pilil yi ñu war a jël dañ leen koy wax sorel njur bi ñu ngi ci day am bés boo xam ne sage bi daf ñuy woo ne tey ci lii laa bëgg ñu liggéey ndax ñun weer wu dee dañuy yóbbu PV xam nga boo liggéeyul doo yóbbu PV mbas mi nag a tax temps yi yépp liggéeyuñu ndax wax dëgg yàlla reste c'est bu mënuñu ko booleeg di jox leneen waaye koo romb <laughs> di nga wax ak moom <laughs> ndax yi <laughs> waaw mbas mi dafa tax loolu xaw a wàññeeku uh-huh. waaye weer wu dee uh-huh. le 25 bu ne dañuy daje uh-huh. yóbbu suñuy PV bu fekkee dangaa yóbbu jigéenu wérul hôpital boo ñëwee dama koy def sa PV lool lepp ñu koy def bu fekke ne garab yi di maye dert dama nan ndax koy naan nga ne wa mané ba dé dee ko naan ndax ëllëg kenn xamul mën nga am doom normal mën nañ la opéré té buñ la waré opéré fekk yaa koy nan do am problème ndax sa dérèt dina bari ci sa yaram ba do am problème mu ñu di la wërali yooyu yëpp ñu ngi koy dox wax dëgg yàlla lii mu wax wax dëgg yàlla ci tànk yooyu la ñu ne léeg-léeg itam di nga am cas sociale boo xam ne dangay dem waxtaan kook sa médecin mbaa bu fekkee yow yor nga am ñu salaire nag waaye bu fekkee yàlla xéewale na la nga yor dara danga ko cay jàppale waaw bu amee ku feebaree bajenu gox yi amu leen salaire déedéet amuñu salaire waaw am na loolu monsieur war na ci wax ah monsieur <laughs> dañ lay ah. jàppale ci loolu suñuy doole bopp. Uh-huh. léeg-léeg am cas boo xam ne. Uh-huh. man damay dugg ci biir kër gi. Uh-huh. naan dama am malade kat sàngam damaa bëgg lu waaye am nga jox ma. bu ma amee dem jox ko malade loolu moom wax dëgg yàlla ñun bàjjan yi ñu ngi dox boobu doon li mu wax nag moom dara dañu ci waaye lépp ñu ngi koy doxal yoon waaw.

boo xamante ne euh, wala comité d'action bo xamantene dafa doon lëkkale association yi sous la coupole du conseil de quartier pour ñuy xeex Covid bi yow est-ce que euh, yëgoon nga ko est-ce que impliqué wu nga ci. non man kenn impliqué wu ma ci mais à ma manière à ma façon ñi nga xam ne man euh, maa ngi leen doon gis maa ngi leen doon sensibiliser ci Covid bi loolu moom maa ngi ko doon def ba tey fu ma toll nii maa ngi koy def ndax loolu mooy suñu bopp. loolu mooy suñu devoir dañu war a sensibiliser ndax Covid bi ñëpp xam nañu yaraax épargne en Bel Air boo xoolee sa presque saa yi ñuy lim ci Covid bi dañu ciy boole donc mu ngi fiy def ravage fii donc ba léegi war nañu gën a mën a sax pour gën a mën a sensibiliser nit ñi ci Covid bi parce que am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi koy naataable ndax Covid bi am na wala amul mais ku xool ci jamono yu toll nii xam ne ko Covid bi am na te mu ngi mu ngi def ay affaire mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi sonal nit ñi mu ngi faagaagal doomu aadama yi te Covid bu njëkk ba ak Covid bu léegi bi am na différence bii moo gën a metti kon boog ñun nañu gën a góor góorgóorlu may woo waa conseil de quartier euh, président président kii AJPS que ñu gën a góor góorgóorlu sensibiliser population Hann bel xamal leen ne Covid baa ngi ci dëkk bi que nit ñi nañu respecter les mesures de barrière té ñu baña café suñu bop parce que li metti ci ñun rek lay jóge sa yu metté rek ci ñun lay ci ñun lay ñu kon bok buñu ñu lo xamné dafa wër aduna mu jaaxal ñepp lolu buñ la né amna waro ko foy té nit waru la gëna bëgg sa bop waru la gëna bëgg sa bop bi moy tay bo taxé sa masque raxas sa loxo sa bop ngay aar mais bo defulé lo aro sa bop kon bëggo sa bop kon bok ñun nañ leen gëna gor gor gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jege pour ñu respecter les mesures de barrière ba yàlla dimbali ñu am vaccin mu ñëw ñu vacciné wu lii mën fa jóge parce que mu ngi yàq. merci euh, président dafa mel ne conseil de quartier bi am un déficit de communication ah. waaw par rapport ak interpellation waaw te bëri na ñuy interpeller aussi tamit wax yëguñu wala quelque chose comme ça. Donc, bon, en fait, euh, euh, je pense qu'il y a lieu de, de, faire une précision par rapport à mon frère Jimmy, que l'humour, c'est très important, parce qu'il ne faut pas que le conseil de quartier joue un rôle de cannibalisme. C'est-à-dire que des filles, moi, c'est ma part de marché, je dis que Dieu a beaucoup. Bon, en effet, bon, demain ou ça, non. Mais nous sommes dans une période de synthèse. Ce que nous c'est nous avons fait un succès en réalité quand on définit le conseil de quartier comme une structure fédérative mhm. mais structure fédérative il faut coordonner les structures il faut être dans une action bien déterminée mais ça n'empêche pas à chaque composante comme Badjounogor ou wala de dérouler son propre programme mhm. donc il faudra se réinventer. Il faut, on a l'impression que euh, le conseil de quartier est en train de phagocyter les éléments. notamment l'effet de cannibalisme pour mhm. préciser. ma dans la coordination suprême conseil de quartier de fédérer tout ce qui est structure Nous, suñu conseil de quartier dafa original déjà d'arrêt, ça sas lañ bokk Mani, quand on fait quelque chose dañ koy fédérer pour gagner de la force waxna la la force du conseil de quartier de Village trois quartiers am conseil de quartier ici dans d'autres contrées da y gis ñaari ruelle ruelle bu am conseil de quartier c'est pas efficace ñun logique bobu démé mais cela ne signifie pas que composante composantes nek ci comme AGPH ou comme bàjjenu gox nous a arrêter ce programme personnel ils doivent s'adapter se réinventer mais le plus nous mën def ils ont l'appui du conseil de quartiers devant eux nous permet, permettre le conseil de quartiers on nous cite en référence par rapport au déficit de euh, de d'information sur euh, ce qu'a dit ma ma grande sœur le conseil de quartiers vous êtes très moins ñu koy formé. Nous koy former c'était la première nous former une structure vous ko ci penc ma

donc je pense que loolu bon dafa un écart communicationnel peut-être entre nous, ba fa lettre bi ñu dugg nek fa wala quelque chose comme ça mhm. mais le conseil des quartiers, lors de sa formation mhm. amul dans les maisons de Anne, mhm. ku jotul convocation est-ce que est-ce que est-ce que euh, la communication devrait s'arrêter ci ci ci convoquer nit ñi assemblée générale est-ce que la communication warulum continuer pour que nit ñi euh, adhérer au concept au projet aux activités yi nga le conseil de quartier bien sûr bien sûr le conseil de quartier c'est une entreprise humaine. Mm-hmm. perfectible. Mm-hmm. rien n'est parfait. Mm-hmm. dafa am ay défis yoo on va on doit le surmonter. c'est un défi communicationnel. De quoi qu'on puisse dire il y a fii ak y' a un avancement. boo xamante dans le volet de communication. ba du jii conseil de quartier parle parmi les les administrateurs. ak Abdoulaye euh, Dione. Il fa être administrateur ils sont interpellés chaque jour dans le conseil de quartier dugal dans le conseil de quartier Sans rek maa ngi ko doon waxtaan mhm. c'est un effet désirable mhm. c'est-à-dire que nous mais les gens ils se mettent au fur et à mesure que l'utilité même du conseil de quartier mhm. parce que comme dit maintenant, ko maintenant un notre problème comment c'est quoi dañuy dem conseil de quartier bi c'est pas son rôle le conseil de quartier n'a pas la vocation d'éduquer les enfants dans un Village le conseil de quartier n'a pas la vocation de trouver un emploi aux gens de en village. Non. Mhm. donc y a une mission la yoo xamante ni. de koy conseil de quartier mais cela veut dire quoi. Ah, cela veut dire que les gens le conseil de quartier doit servir d'interface entre les structures mais je termine je termine mhm. je je vous l'accorde. Donc mhm. cela veut dire quoi les gens ont confiance. au conseil de quartier. maintenant c'est au conseil de quartier en retour. de définir des politiques stratégiques pour essayer de répondre à ces attentes-là, comme la, le cherche, le, la question de l'emploi, si nous sommes fous, nous avons des éléments de réponse factuels, nous avons des éléments pour, pour ce qu'on aussi, pour étayer nos propos. Donc je pense que euh, côté Bob, là, on tu vois. Merci Président. Euh, président Djimé, euh, Président Amada a dit emploi. C'est Diamono AGPH, euh, une structure qui doon na jàppale taxaw bu baakha baakh baakh sur sur l'emploi des jeunes on peut citer des jeunes yo xamné ne tey jii am liggéey c'est grâce à l'AJPH mais tey jii affaire bi dafa mel dafa soxé d'accord. euh, sur ce point mom je pense que ni euh, le problème d'emploi, ça moom un problème majeur ici au Sénégal parce que même le président de la République.

la moitié nous met en place euh, AGEPAS révolte la on est dans un quartier qui a été ne société ñoo grand yi ont nañ diplôme ils ne parviennent pas à trouver du travail un jour ils se sont regroupés dem tal ay pneu ils fii wax des wax révolte mettre en place association bu ñu dénommé AGEPAS Les sur ce ko ba ont def nañ alhamdulilah am na grand yu bëri yoo xamante ne si loolu lañ jaaree woon ba am si ay emploi maintenant euh, possibilité boobu noonu gars yi amoon il y a de vingt ans ou bien quinze ans en arrière pour am travail les mêmes possibilité amut réalité yooyu noonu à nos jours amatul parce que actuellement nii grand yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu léggéey association bi on parle avec eux jaar nañu stratégie yi nga xamante ne ñoom defoon nañ ko seen ay temps ba réussir ko stratégie yooyu yëpp mais la fa 15 ans en arrière ak la donne a changé bokkatul. et comment. hein et comment parce que chaque fois que chaque année comme li ñu plan de travail annuel dañuy bind des demandes d'audience adressé à tous les directeurs de société. Directeurs de société vous bu ñu recevoir ce qu'on leur dit que ni nous avons besoin de travail n'importe quel travail après si vous avez faire, aval dem après on va vous contacter tey suba suba ba année prochaine relancer vous demande à chaque fois vous vous Nous sommes lay actuellement Nous sommes offrir fi carrément quoi Sénégal est toll mais principal rôle euh, euh, principal objectif mais tamit croiser les bras parce que euh, au niveau de la GPS, nous avons une formation en entrepreneuriat Nous avons def formation euh, avec l'aide des ONG comme EMAD EMAD mine de rien on travaille avec EMAD depuis 2004 de 2004 à nos jours nous travaillons avec EMAT. EMAD travail ce sont des travaux sur le terrain envers la santé di def une sensibilisation sur le tuberculose des fois ñuy des ay sensibilisation sur la paludisme des fois nous def ay sensibilisation sur d'autres euh, maladies am na benn mois bi nga xamante ni liggéeyoon nañu ak ASBEF loolu noonu yëpp mu nekk ay travail yi nga xamante par trimestre lañ koy travailler mine de rien boo wàccee sur le terrain tu fais le travail euh, normalement après à la descente ou bien fin trim bi am na somme bi nga xam ne dañ ko dugal bo xamanteni ni dina permettre relais ñu neexalee leen ko quoi. en plus de cela mu nekk structure bi nga xamante tamit étudiants yi ñoo fa nekk te tamit ñoom seen savoir bi nga xamante ne am nañ ko dañ koy joxe gratuitement on organise des cours de vacances on organise des cours de renforcement sans bénévolement quoi xam nga loolu lañ fekkoon suñu grand ñoo ko mettre en place ba ñëwee tamit dañu continuer si lancé boobu noonu quoi mais l' emploi au Sénégal actuellement nii dafa nekk problème bi nga xamante ni non.

xalé yu jigen ñi da ngay nek xalé té la ëmb ñu goor ñi tuñu école xam ñi ngi drogué wu et cetera yow lool ban ban ban ban jàngat da ci am ah, wajur yi de am nañ ci def mhm. wajur yi mhm. ndax dafa mel ni dañoo bàyyi seeni loxo ndax doom boko juré juree jàngal dugal ko école mhm. su jàngul école warna am métier bu amul métier rek su magee wajur balay mer ndax war na am métier bo ne sama dom ji mënaluma ko dara ne bu yàggee mo lay joylo dom dang ko wara a ndax ya yor anyam yor reeram yor ndekem yor yëreem yi muy sol kon koku war nga ko mënal wajur yi dal lay wax ñu defaraat sen toogaay wajur yi nañu defaraat sen toogaay ci xalé yi mënoo jur sa doom ji te ma ko dara kon ñun waajur yi nañu góor góorluwaat yokk góor góorluwaat ci suñu doom bi mooy li jimbe wax ñàkk liggéey bi moom dafa gën a dof loo xale ndax boo amul liggéey war a faj gàcce te fajoo ko neexul ci xol neexul mm-hmm. kenn ku ne boo sañoon bu joxe jotee nga génn jox say waajur waaye boo demee bu mën a toog ko jox sa waajur ndax sa waajur moo la koy jox. Mhm. dafa metti dafa metti kon boog ñu gën a góor góorlu rek. Mhm. ah gën a ñaax xale yi. Mhm. gën a waxtaan ak ñoom bu ñu tàyyi di waxtaan ak ñoom. gis nga démb école xale yi premier yi. maa ngi leen fekk ñuy waxtaan kenn takkul masque sax. dama leen ni eh. ñuy wax rek ma jël raccord bi ma yonoon kook ci kenn kiy wax mhm. ma ne ko bu ma leen nuyoo di wax ak yéen du ngeen ma déglu mhm. mu ne ma ne ko lu tax takku leen masque mhm. amu leen ay masque mu ne ah kay directeur jox nañu ay masque waaye tey bi ma demee ca école ba dama fekk ñoom ñëpp ñu takk ay masque ñenn ñi xamuñu waaye boo leen waxee dinañu nangu xam kon waajur yi nañu yokk góorlu muy man muy sama morom nañu góor góorgóorlu ci xale yi gën euh, euh, le problème de l'emploi nous mais il euh, y usines donc la mairie en tant que démembrement de l'État, hein, est ce que mon pour que pour trouver de l'emploi aux jeunes. merci. mairie ci benn côté parce que comme ni nga ko waxee yaraax tey mën nañu wax zone industrielle la parce que xaw ma ndax yaa ngi fàttali ba fii ki nekkoon sampoon Gumbala nekkee fii am na ñu bari ñoo xam ne liggéey nañu tey yaraax ba retraité Assane Gumbala moom moo leen wutal liggéey mairie bi mënul nekk fii biir Hann Bel-Air yi wër ko mais yàlla RSE e bu fi nekk responsabilité sociétale mu ngi fii mais du question xaalis rek la mën a joxe ak leneen pourquoi pas mënuñu joxe emploi mais mairie bi lijjantiwul loolu bu ko lijjanti woon tey moo ànd ak association yi ñu dox ko wax ko chaque année du ñàq société bi parce que ñoom ñu ngi doon recruter ah parce que ñu fi nekk ay ay bouillon yeeg ñoom ñëpp mais ñu ngi jël ay yi di jël ay ñoo xam ne ay temporaire mais li tax mënuñu jël doomu yarax parce que maire bi fi nekk moo ko deful bu ko doxoon wax ko ànd ak ñi mu war a àndal loolu dina mën nekk parce que bu dara xewee Covid bi ñoom dañuy indi seen dañuy indi seen participation leneen lu xew lu nekk ñu indi seen participation ku mën a indi alalam di ko joxe soo ko nee jëlal ma nit mu war ko mën a jël donc dafa am lu des biir Hann bel taxawaay bi nga xam ne commune bi li mu war a taxawee ci dëkk bi taxaweewu fii parce que Hann Bel-Air tey chômage waxuma waru fi am de mais waru fi bare comme ni mu bare fekkee li ñu war a def def def nañ ko chômage bi warul bari biir ànd benn parce que ñëpp fii ay ñu jàng rek a fi nekk xale yi dañoo jàng de waa an beleer am na ñuy jàng mais nag dañ leen war a jàppale daf dañoo soxla assistance amuñu ko mairie bi da leen bàyyi ak seen bopp. Ah waaw. quest en tant que conseiller municipal, vous dites que c'est le conseil municipal. Euh, merci beaucoup. Voilà. Ah, bon, comme le débat est fort, mhm. je suis tenu de, même si ce n'était pas énuméré dans l'ordre du mhm. jour. Mhm. Mais donc, ce n'est pas une question que je vais fuir, parce que je ne raisonne pas pour, pour, en tant que maire. Je ne veux pas qu'on indexe le maire, mais c'est le conseil municipal qui travaille. On a une équipe. Certes, il y a un capitaine de l'équipe qui est le maire, mais le travail, à la base, c'est le conseil municipal qui le fait donc par rapport à l'emploi, c'est comme nous quelque chose boo xamante maintenir, euh, de renommée mondiale. Mm-hmm. ce n'est pas une question que les États-Unis ont réglée. Mm-hmm. le Canada ne l'a pas réglée. Mm-hmm. la France ne l'a pas réglée. le Sénégal ne le réglera pas. parce que tey jii nii Sénégalais c'est très important cest jamono pas pareil. tey explosion démographique son rôle et son impact dans la croissance économique. mais il faut le prendre en compte. T'as dit maire Goumbala mhm. la population de Anne, mhm. ils étaient combien de personnes. il faut il faut faire la comparaison mais comparaison aussi n'est pas totalement raison. Mhm. je fais je dans la commission euh, relation entreprise que Yoroba. conseiller était le président de doon mais nous, la mairie ce qu'il fait. des entreprises privées. ku am ay milliards am une société. Google capital de kiwam di jël ay stratégie pour que les gens soient au courant mhm. les qui aider pour mairie en force comme en France mhm. quand tu t'implantes dans ma commune 25 des emplois doivent revenir à la commune mhm. si la commune encaissait directement les patentes industrielles as dit su conseil municipal Alga je veux les 20 de ton emploi tu vas me le donner parce que tu me payes mais la richesse des industries là ça va directement à la ville. donc nous, avons am influence sur ce que tu peux avons dérouler des stratégies comme quoi tu sais quoi, si tu as un emploi tu es à la mairie on te fait une lettre cachetée de faciliter la chose ce qu'on fait.